place deuxième combat de la soirée problème bi nag mooy programme u la ji laa amul ñaareelu combat baa ngi noonu xam naa daal mel ni mbër mi door waar la jóge waaye loo ci mën daal maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi nekk di ñu suivre ci Equivox TV tey ñu ngi dimanche 11 mai 11 juillet 2021 tëgg borom PABC Events grand combat bi moo jabu yoof la ak caat bu booy bambara ñu ngi biir arène nationale arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi ndax pare ngeen mais téléspectateurs yi yéen téléspectateurs yi Equivox TV yi internautes yi nuyu naa leen ziar leen arbitre na ñu ngay lewaatoo ñaari droitier maanaam ñaari fausse garde daw na jëli mu génn ko xeex ndeysaan ñaari mbër yaa ngonguy aw ma nag programme bi moo tax xaw ma seeni tur faw gaa yi xoolal ma tur ñaari mbër yi ñaar ak karakal la boo xoolee ñoom ñaar ku ne fausse garde nga jiital seen lewtoo gaaw na seeni loxo jëkkante tàng solonte ca kaw fan lañ jëm ñaari mbër yaa ngi noonu doolee xale daw na jëli ko xale beneen baa ngay dóor morom ja de waaye moytul mu lay jàpp de yow mi yor ngemb lu fertilité nga jéem a bëree nañ la de mbaa duñ la wañ mbaa ñu ëñ la dóor la caxabal lépp a mën a ne ndeysaan cey làmb waaw man ay élève laay gis muy dugg si ci làmb ji wala dé cey event payab eh dawal na ko daan na ko a ah, woy takk ba daa dëgër daan nañ la jël bu rëy rëy rëy yaa toog sumi sa président da nga daanu ba takk suuf yaa lay la dañ koo dawal bés ko kon deuxième combat ba ci arène nationale ci Equivox TV Babacar ay di ziar di màggal ndaysaan mbërëm dóor waar ma daan ko koy yóbbu mag yi gini junior la mooy Fadel Fadel Ndiaye caat booy booy bambara ngongu dugg si ci géew moo war a bëree grand combat bi borom NGB Grand Dakar ñaari tali wala ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie looloy NCB war daje kan Modou Dia doomu Yoff waaw waaw géej kon nuyu naa waa NCB nuyu naa waa Yoff nuyu naa waa Sénégal nuyu naa waa bi waaye nuyu naa téléspectateur Equivox TV yi wallaay du mën a ñàkk Babacar ay nuyoo tey i ñaanal ci ñëpp jàmm comme niñ ko defe woon démb rek di ko sàkku ci yéen yéen sax lu mën a xew moom nag ak ñuy ñaanal kon ñun ñoo am droit di leen ko delloo saa su nekk rek dégg moom làmb ju neex làmb ji nag tey da am lu ci spécial parce que boo xoolee ruus bi ci tirbini yi amateur dañ fi daan toog ba ci côté loos bi ñu yam fa wala boog supporters yi laay wax waaye tey presse dafa def lu bokkul ak li daan am daa jël ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi aj leen ci kaw maanaam ci zone bi ak vert bi rouge bi mu réserver ko amateurs yi loolu la Prince def tey moo tax nga gis rouge bi yaraax noonu te rouge bi tam dafa dafa rëy lu ko feesal yombul pour mu fees dëgg dëgg dëgg il fallait que supporters yi bokk ci mais Prince moom tey doxewul noonu ticket 3000 yëpp boo xoolee ñoom ñoo aju ci kaw rouge bi quinze mille la waaw te xam nga ticket 15000 itam. ak tabaski gii di metti di ñëw nii ah pour am def ko day xaw a metti waaye loo ci mën a dégg daal làmb jaa ngongu Equivox sa ngongu ak ay image yu leer ay direct yu am solo mel ni kon groupe Equivox TV daal dafay nekk pour sénégalais nekk pour pour politique nekk na fi pour politique moo xam sport la moo xam culture la moo xam santé la moo xam lu mu mën a doon rek activité boo xam ne sénégalais yi ñu ngi ci yëngut rek Equivox TV mu ngi ci waaye xam nga làmb nag boo gisee mu ñu gën caa saf dañuy làmb mooy suñu cosaan mooy li nu moom abbi wuñ ko jëggaani wuñ ko demuñu kenn dinu ko jàngal ku bëgg a xam làmb fii ngay ñëw ñu jàngal la ko ndax mooy suñu sport national loolu la yàlla dogal moo tax ngeen di gis toujours Equivox di ci wane ma gis ngeen li ma leen doon wax léegi ci tribune yi waaw boo xoolee zone bi euh, supporters yi tey fa lañ toogee voilà mooy loolu ñu leen di wan noonu gis ngeen supporters yi tey zone bi ñoom fa lañ leen wax ñu toog fa loolu la prince def tey de lu bees parce que boo xoolee rouge bi moo daan njëkk a fees après nga gis gars yi dem ci zone bi waaye tey boo xoolee rouge bi moom na mu daan mel melagu ndax li ko waral mooy supporters yi tooguñu fa me ni troisième combat bi lañ jëm waaw mu ngi jëm ci ñetteelu combat bi ci géew bi Mod Ja maa ngi koy seen ci géew bi Mod Ja bu Yoff Mod Ja doomu Yoff maa ngi koy seen ci géew bi Mod Ja maa ngi koy seen ci géew bi Mod Ja bu Modou Dia bu Yoff caat bu Boy Bambara cey lamb waaye salaam toogal mbër asseyez-vous mbër ci mbër félicitation mbër noo tudd yow ah? caatu réseau alias booy ñaago am ñaago foo jóge mais ni nga daane booy bi doy na waar waaw ok wax nga dëgg man joxuma ko micro sax Habib mbër teel micro bi wala ma teel la bàyyil ma teel la ah, xam naa ne yow fi na seram daa tàng ci loon ne nga ne foo jógee jógee ba Grand Yoff Grand Yoff nga jógee kon écrit Dóor nga jógee Dóor waar écrit Dóor waar Fadel mooy suñu kës quoi ay Fadel lañ fa neexal ay suñu grand brise de mer Yékini Junior ay ñoom Seck Ndaanaan ñoom Caatu Waalo ay ñoom serpent noir ñoom lañ fa neexal quoi ay calambeer ñoom suñu grand yooyu lañ fa neexal. Fadel moo la indi tey. Fadel moo ma indi quoi Fadel moo ma indi waaw buñ si jugee nag. yow yaay doomu grand af. doomu njaago waaw doomu waaw. ma la waaw. ana Yékini Senior. ah ah. ah kooku daa si boppam mi ngi liggéey de wax dëgg mi ngi liggéey parce que dañu. Ah, ñu ngi koy gis bu baax maa moom ñoo ànd chaque jour que Dieu fait ñoo ànd dem entraînement maa ngi ñaanal ñaari combat yu mu dëmmal yàlla na ko si yàlla may ndam ndam bu kaw njortam loolu laa koy ñaanal quoi avant may sant suñu waa koñ di leen wax nag nañ ma jégal quoi combat bi trois jours laa ko jël dafa jàmp nañ ma jégal quoi xam nga nit motul te am na fu ngay toll yow mbër nga entraînement rek moo la war a moo la moo la arrangé te combat bu ñëwee am na fu muy toll da war a mën a jël pour xoolaat sa yoon waaw mais am na booy neex si làmb ji booy nañ ma leen jox ma. yan booy xam nga rek comme sama mbokku mbër ni ñu koy waxee fii boo tuddee gars yi dañuy taamu naan ay daf ma waajal affaire yooyu mais ah, sama combat Liss Ndiago jaadu na sama combat Dofu Diaz jaadu na sama combat ak jaadu na ak ñeneen ak ñeneen koo xamante lamb boole na ma moom muy sama morom nga ñëw ñu bëree waaw. bi mooy sama. a combat laa def. waaw merci kontaan nañ si yow bu baax. jaajëf koo koy caatu réseau. borom réseau ba ngooŋ. jëm ci troisième ndeysaan troisième combat de la soirée faw baa leen di seet wala boog mu ngi wax ak ñoom kooku li mu door bu mu njaan mooy tuus noonu waaye bi suuf leen troisième combat bi ngemb lu vert ngemb Lagos ñu ngi lewaatoo ngi lewaatoo yow foo jëm yaa ngi dem ci saako bi de xeex kot ca biir loola bokk e cey lii lu mu ko bëgg a def loolu daa yomb booy dinañ la daan maa ngi lay bëggee am nga jàpp bëggee naa la xale yaa ngay bëre botti na ko daan na ko daan nañ la jëlli bu rëy rëy sax dogal jógal sangu ji jël bañ la daan rëy na wallaay jël bañ la daan rëy xool supporter ya seen mbër a daan xool supporter ya seen mbër a daan seen mbër a daan bëre daan gis nga li ma wax ci ruus bi jaa ngi noonu ci Equivox TV par moom lu muy saraxe moom mburu lay saraxe wala lan cay lam dëkk bëri bagaas waa ji de jox nañ ko sarax ba mu yéegaat maa ngi lay ziar Cheikh naka yënguy borom Dakarat Abdou Aziz Abdou Aziz maa ngi lay jaar ba yaa ngi si jàmm naka yënguy Abdou Aziz Abdou Aziz kaay kaay rek kaay Abdou Aziz kii mooy Abdou Aziz teel micro waaw yow xam nga da nekk membre du CNG. waaw bokk ci làmb. waaw yàgg a taxawu làmb. fan yi gis nga fi ay jafe-jafe yu fi am ci ay violence ba CNG jël ci ay dispositif uh-huh. yéen ngeen nekk ci kuréel bi nga xam ne yéenay doxal làmb ji uh-huh. loolu laa bëgg rek tey nga gën a fàttali uh-huh. waa làmb gën a fàttali sénégalais yi parce que tamit defe naa ne arène nationale ak ni mu mel nii cadre bu mel nii ak feneen fu arène nationale sax di ko yàq est xel la violence moo baaxul fenn Babacar. fenn mais yaakaar naa nag violence bi dina dakk ndax boo xoolee violence bi duñ amateurs yi ñëw di seetaan si lamb mais li ñuy wax mbalit bi ñu ñooy daw di agressé nit yooyu mais nañ ci disposition ak police ba dinañ bu ñu fi bëree ba 22 dootoo gis ku ñu agressé incha allah. ok parce que dégg naa euh, ci waa Pikine ñuy ñaxtu lu mel noonu ah. non non non parce nekkul ci biir làmb ji. mais li leen di wax nee naa leen na jël disposition yoo xam ne bu làmb ko saa xam kenn buntu bi kenn du fi taxaw di taxawal ndax ñooñu ñooy agressé nit ñi. ñooñu nag bu ñu leen jàpp yóbbu ñun ñuy seetaan nañ mën a ñibbi ci jàmm incha allah. waaw kontaan ci yow. jërëjëf. naayam Abdoul Aziz. Abdoul Aziz Gueye ngi nekk membre CNC wax na dëgg parce que am na loo xam ne nag des koy faj. waaw waaw agression bi lañ war a bàyyi tey la géej cey làmb lamba ngoog am na mbër mu ne ci géew bi ñu jëm ci quatrième combat de la soirée sur ne PABC prince Sissoko surtout suñu si Sissoko nee na kenn du prince ndeysaan मोर्चाची आत petit balan cey prince ak waaw waaw ay xale yu jigéen lañ ay njegemaar ñii nan ñii la ñuy wax ay njegemaar hélas njegemaar yaa ngoo muy dugg si toog ab yow ba rafet nag def seen rouge noir laal seen tuuti balan hélas hélas xale yu jigéen yaa ngoo waaw waaw cey làmb Malick Gakou Gakou ci loo ne programme dina baax trop ñaari ci géew kii moom ah la ilaha illallah te ma ko xool si xaw a jox manga de cay jamono tey jooju làmb yéen a ngi ci king bi tuuti sponsor la ci bés bi tey boo xoolee waa King boisson boobu ñoo ko gunge ànd ak Zador diw gu baax gi may wax ne moo gën ci réew bilaay Zador a gën ak Alburaax nga xam ne wàllum location oto tamit kenn ci ñoom rew wala supporter lamb ji daa am tey table VIP Balla Gaye 2 ay pomme ay orange ay banana waaye bi saraxa neex waaye ewoy ne ko nga ñaanal ma ay seen moon mbay taxaw kañ production Axel Balde waaw Kagne Ngom ak Mor Mbaye ngewel gi Axel Balde ma ngi ama cey si mu ngoongu def mbaxanaam laa faam taxaw waaye ama Balde ku mu duloo ci arène bi loolu billahi dina mel ni ba Ngor Njaay Bamba dina ma de loolu leer naa dina wax kat neex lool borom caw saxir Ama Baldé borom Pikine ñu ne ko Ama yaa yëngal gësëm Ama yaa yëngal gësëm cey Ama Baldé sa lu ndaw waaye xarañ loo féete fële ñu ne ko Ababacar Ababacar Mbaye xarañ loo ne Mbaye Ababacar Mbaye xarañ loo cey doomu parcelle jooju borom 1 ba 26 boobu bés Luc Nicolaï ñu koy nuyu di ko ziar depuis Mbour géej yàlla nañ yegg ci jooju lamb ak jàmm fekke ko te tal ko waaye yegg ci lamb yëpp na parce que comme li may wax rek promoteur yëpp la ñuy ñaanal Mod Ja Zil Mod Ja Zil a ngi koy ñaanal Zil Balde ngay ñaanal Mod Ja belle image waaye bi image doy na waar waaye Oh. ah Mod ja ñaana Mod ja dem na dëkk silbal day loxom mu ñaanal ko waaw addina ñaan fu lay jóge Malick ñaa ngoom bëgg fàllu maa ngi lay bëgge bëgg maa ngi lay jaar ba après nga ñëw bëgg ndeysaan troisième combat wala boog arbitre day soufflé troisième combat de la soirée comme li may wax nag ngeen jégal ma de parce que yoruma programme actuellement may reporté nii te boo yorul programme ba pare présenté wu mbëri mbër yi loolu tamit dafa doy waar ndax mbër yi dañ war a présenté ba pare mu am programme mais présentation amul ci combat yi programme gisuñu ko loolu tamit faay la ci ñi nga xam ne ñoom ñu organisé parce que defe naan papa yi bu njaayee ngeen toog ñoo ko bàyyee ngeen toog te ñoom ñoo daan def loolu xaw ma lu tax tey nag présenté wuñu mais arbitre moom soufflé na ñu ngi lewaatoo ñaari xale yaa ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo jàppante ay loxo xeex door na ko boo xoolee ki féete droite moo ëpp yaram waaye soo xoolee day mel ni ki féete gauche a gën a sec daa mit tamit moo gën a vif ndax boo xoolee seen yaram yi moom moom la yaramam gën a tàgg waaw ñu ngi lewtoo de ñu ngi lewaatoo jàppante nañuy loxo jàppante damantey baaram bàyyente ti bu suuf lewtoo waaw waaw cey làmb maa ngi lay bëgge mbër yegg ngunjaan jàppante nañu jàppante nañu ngeer bu sapay tuus noonu cey ngeer jàppante jàppante nañ dara xewagul cey ngeer ba bàyyante Sador ngay seen noon diw gu baax gi ngeer a ngoog ngeer a ngoog waaye ñaari mbër yaa ngi ci géew bi daw na jël ko daw na di ko jëli mu bañ ñaar ñi seen combat ngi bëgg ngi bëgg a yàgg ñaar ñi seen baa ngi bëgg a yàgg nag waaw waaw xewagul de booy li ñuy takk day dema a leen di sonal xoolal lii rek ngemb laa ngay commencé yëmbëx moom mi ñu wan ginnaaw ndeysaan tey supporters yi kenn amul seen fay waaye yéen ñaan ñi day nar ngeen ñu fay guddee ko ca ginnaaw mu daw yaa nga ca te dara xewagul daw na bëgg ko wër mu bañ ndengeeñ dara xewagul allan ma de ndeysaan lebi door bu ngujaan l'adversaire de guerre mooy loolu l'adversaire waaj na di ko jël dóor jaxabal loolu daa sori manta ne waa ñaar yooyu ndax mën naa ànd ndax loolu mën naa ànd ndax ñaar yooyu mën naa ànd dinañ la daan daa diis dafa diis o oh. laa ilaha illallah xale yaa ngi bëre waay diggante yàgg na combat bi yàgg na caatu yaraax a ngi noonu bëgg wër na ko ndombo wër na ko ndombo wër na ko ndombo wër nañ la ndombo dinañ la daan dañ lay daan wër nañ la ndombo wër nañ la ndombo yaa nekk nii Caatu Yaraax kii de wër nañ ko ndombo combat bi lu koy jeex oh! waaw daan na ko jël bu rëy yëkkati dóor ci suuf daan ndongo yëkkati dóor ci suuf. ndeysaan te boo moom moo ëpp waaye daa ni physiquement kii moo gën a liggéey. dëgg la moom. équilibre moo gagné. looloo xam si. am nga jàmm. am naa jàmm. de Sall Bawol. waaw lamb la. ma parce que du yaafu sam. ndax gaynde dëgg mooy ngi. def ci làmb borom boo àndul sa conscience ak danga dëgg bu ma laajee caatu yaraax quel micro man maa ngi ak micro lan moo tax say combat di gaaw combat bi nga bi maa ngi woon fii mais combat bi jéggi naa prix du la arbitre soufflé rek mooy xëy nga wàcc di ko daan waaw Ababacar yow da ngay suma grand ma ñu dëgg dëgg làmb ji mais balaa loolu làmb ji tooguma plateau ci kaw maa ngi sant waa Yaraax yëpp di leen gërëm di sant waa Kër Moussa yëpp aussi tamit di leen gërëm ba ci alaaji Paate ba 100 pour cent alaaji Paate 100 pour cent Yaraax tamit jàpp nañ sama combat ay sa Yaraax yëpp a ba zone 7C ñëpp maa leen di bëggee euh, di ci monsieur le maire Babacar aussi maa ngi koy gërëm bu baax jàpp na ci làmb ji monsieur le maire euh, ku ci mel ni euh, Ismaïla Diallo jàpp nañ ci làmb ji ñoom Diène Ndiaye jàpp nañ ci làmb ji honorable député Fatou Diouf autorité lañ bàyyiwuma kenn di gërëm fan sa gërëm Caatu Yaraax yëpp jàpp nañ ci waaye daal ñëpp jóg waaw mairie ak paa yi bàyyiwuma kenn kër ba kër fëgg naa ñëpp di leen wax ne jaaraama di sant waa Malika Fatou Caaro yëmbal buun fépp fu jaar naa la ba Touba Bawol aussi maa leen di gërëm parce que daal boobu dafa jàppoon ne moom nga nekk bool bool. <laughs> maa ngi waa Ndukuman. effectivement waa Ngoxoj maa leen di waa Lulub. Lulub. waaw waa al nangal ma ba ci. ba bi Zal Baol dëkk. maa leen di bu baax a baax. léegi sama mbokk waalo waalo yëpp. waalo ba ci Dakar ñun maa leen di gërëm. am na solo ah, waa sànq da nga bu leer ne maanaam. lamb ji dafa gaaw a seetaan bi nga bëree fii bu yàggul yaa ngi dégg ak bi nga bëree démb defe naa yaag deux sigal woon xaw ma yaag kan ki nga daanam fii yaag serpa exactement trois secondes trois secondes saal bool nga defaat même chose waaw ay xale lañ lu xew ñun bëreeguñu tey man gars yi dañu ñëw suma bonne presse man leen caatu yaraax lu mu wax lu nekk rek waxuma dama koy def de mais nar naa ko parce que à l'âge de petit mënoo nekk mag di ko def jamono ji dañuy maanaam wane suñu bopp ci làmb bu ñu nekkee xale loolu làmb laa dama koy def ci ay Thiès laa jëm incha allah waaw. parce que tamit dama am supporter yoo xam ne am ay karja di toog mairie di lemu paay xam nga ñu ne ci kaw di laxasu foo ma gaaw libéré leen moo tax ma leen teel a wax taal leen seen téléphone yi. waaw balaa ngeen di wax waxoon naa leen ko. balaa ngeen di gis waaw parce am na ñoo xam ñoom dañoo dem ba seen i téléphone waaw. waaw parce que xam lu waral loolu moom moo ma wane nag ndaanaan la di ñëw man may ndaanaan di ñëw ndaanaan ay bëri ndaanaan. ngeen daje. bañ dajee force dara day xew day xew. te ku gën a ci daje bi. effectivement. gën a gaaw bilaay walaay. ëpp rapidité. bu viat. ñëw def combat bi jeex. léegi foo jëm koo bëgg a bëree. waaw fi ma jëm mooy comme li ma waxoon démb rek. parce que ñun dañoo jeexal suñu ndaw boo xoolee maa ngi toog ci ay onze combats. tey man am naa dix victoire. benn défaite benn défaite. ku la champion bi ma daan kooku xamu nañ ko ci làmb sax boo gisoon na ngay wax tey le problème mooy dafa jot ñun ñu bëreeg suñu grand frère. parce que làmb dama man dama ñaan yàlla. làmb dañu tere samay waajur. mais mënuñu à tout moment ñu toog mais à tout moment yoo xamee ne da ngay bëreeg ñoom. ñu fax solo la delloo ginnaaw loolu ma ma teg sama ngemb dugg ci àll yi mbapati. waaw léegi bu ma joxutoon mbër bu ñu xam du ma bëreeti ci làmb. waa li may wax rek mooy Modou Anta Modou Anta Modou Thiat Modou Dia ku ci daan mën naa la may saas Zos na ñëw ñu bëre Zos na ñëw ñu bëre ah. na ñëw grand frère la boo xam ne mu mel na ñëw mu ma may ko saas ñu neexalaat ko loolu nga waaw ba tey mën na nekk ana Serigne Ndiour Serigne Ndiour borom Espagne nee ko maa ngi koy bëggee sama bilaay yaa ngi may fàttali waaw moom borom baax la ndeysaan dafa bëgg yaay raax waa Maroc tamit fàttewuma leen mafia caatu yaraax bi man rek ma am mafia boo xam ne Europe partout dans le monde. waaw suba teel caatu yaraax fa dem fekk leen fa. Espagne. Ah. France ah. Amérique États-Unis ah. ñoom Mansour caatu deux ñoom ñëpp maa leen di bëggee vraiment gars yi maa leen gërëm bu baax a baax France waa ñoom Léon maa leen di bu baax a baax Espagne ñoom vieux ak gars yi fa ambale yëpp ñoom maa leen di siyaar waa Maroc tamit fàttewuma leen ñoom Momar ñoom Alpha ñoom Thiamo ñoom ñëpp ñoom Youssou Bàcc gars yi bàyyiwuma kenn di gërëm suma papa gërëm suma yaay di gërëm waa Yaraax yëpp vraiment ku ma limul rek dangeen ngeen jàpp ne tey yoruma li si quoi démb la plateau yi waroon nekk kon tey ku caar Yaraax maanaam gërëmul rek jàppal ne damaa juum mais ku mu mës a jàppale ku nekk rek sant naa la gërëm naa la tamit am na ñoo xam ne ñoo ma doon ñaanal tey te gisuma leen maa leen di sant bu baax di wax ne nañ jàppale seen doom defaguñ dara ci làmb nag tey laay soo tàmbalee bëre di gërëm journaliste yëpp chaque jour la violence lay béy baax di encouragé Zal Baol di bu amatee combat yàlla yàlla may ndam démb nag lamb ji trop. mais lu fa yëngu lu nekk rek waaye rax la de. ñoo ko yëngal waaw ñoo ko yëngal. <laughs> loolu neex na. félicitation. jaajëf ba. ndaysaan boo koy jaatu yaraax. moo démb moo daan Samba woon jël bu gaaw. balaa gars yi armé seen daan na ko ba dem. wax na dëgg mbër day song. song daa bokk ci lamb. mbër song da jeexal combat. mbër mu la dàq song gën laa xam nuñ koy defee ah new mënu bëri defet de waaye ay ndamam dina bëri de ndeysaan noppal ma tuus moomu jël ma tuus moomu waay Pape Maguette Ba borom Sénégal maa ngi lay béggee loone yaay kun après ndeysaan caata ngoogu hélas tuus mi caat bu booy bambara ngoogu cey caat ndeysaan waa ñaartal yëpp ànd ak tuus mbaru cosaan la caat borom joon war doomu séréer bu mag boobu waaye la boisson king boisson bi xew ci jamono nga xam ne ku ko naanul naanul boisson bu normal waaye ani Zador bu Aziz Ale Ndiaye waaw sama xarita ko moom Aziz Ale caatay tuus ndeysaan laatay tuus cey lool mbëru cosaan la waaye am na combat ne ci géew bi jamono jooju te li nag day xaw a naqaril affaire yi ñuy tuus fii bëgg a fii ndeysaan cey loolu jël ma loolu waay cosaana ngoongu cey caat waaw waaw cay lool caatuwaay déggal loolu lool ee mbër piir wala cosaan piir caat borom NCB ñëw ci diggu géew bi muy quatrième combat bi. cinquième combat. cinquième combat. waaw man de yaa bëri quatrième combat. tey maa ngi lay bëggee. naka yëngu yi. avertissement. am xooba jaaxaar mu koy yëkkati ndeysaan ba fekk rek baa koy yëkkati waa loolu looy sport soxla image bi rafet na trop macha allah mbër lii rafet na de ah mu ne lii rafet na de rafet na kay rafet daan na ko pare yëkkati sa micro aussi koy yëkkati c'est joli parce que ñu mbëri dañuy mala ay nit lañ ko waa sport rek la ñoo mën a mayante xaalis rafet na trop sax eh, waaw Babacar merci beaucoup ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonente bi di sant sama ñaari waajur di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay bu baax a baax aw fayam yàlla fi yàggata te wér yaay dundal kontaan naa sa doomu Yoff ngi nii doomu Yoff waaw victoire maa daan mbës mbës waaw victoire bi nag di damay sama yaay ak sama soxna sama soxna maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñu ma àndal ñëpp di gërëm Diouf Sarr jàppale na bu baax di gërëm staff équipe Yoff di gërëm ñi di sonn si man ñëpp ñi di sonn si man tey boo ñëwee rek juum maa ngi gërëm staff équipe di gërëm Petit Lafan mbër la waaye day sonn si man di gërëm Demba Thiaw bu baax bu baax a baax Abou Sama Ama Assane Dior na aw ma seen fay moo siis yàlla ma leen yàlla fayal di gërëm waa Baale gépp di ñaanal Modja yàlla ka yàlla may ndam Modja yàlla ka yàlla may ndam. ah. yaa ko sut tuuti. wala ëpp yaram. mais gis nañ dama gis ne yaa gën a dëgg yaram. ngeen na yab daan naa de waaye na yab waruma sonn combat feebar jom laa blessé ñii daan naa de waaye dañ ma mere waruma sonn ma ngi leen jéggal bu baax a baax moom ma ëpp volume waaye ëpp ma doole waaw combat bi tey xamoon nañ ne day yàgg ñun bi ñuy ñëw xamoon nañ ne day yàgg parce que làmb la bu baax ma ngi bu baax a baax bii mooy sama huitième combat waaw am naa six victoires deux défaites waaw ndongolo nga ñëw ñu bëri ndongolo ndongolo kese laa laaj kase kase kase waaw. Ah. nongolo kase. si dynamique de défaite la toog warul warul at ku may bañ. waaw. moom kase waaw moom la di si ñëwaat waaw. fii la yéen a kontaan bu baax a baax. yéen a kontaan te combat bi ñu ko tegal si tànk combat bi. combat bi ñu si tànk. andi ñu ko andi ñu ko ñu xool ko. waaw waaw. waaw. waaw. jërëjëf Babacar jërëjëf yàlla na yàlla fay sa xol jaajëf waay jaajëf kookoy doomu Yoff daan na jël bu rëy jëllam rëy na kookoy loobu doomu Yoff tëggkat yi may nañu tuuti ñuy joué Papa Abdou Fall ndeysaan ba tey yéen a ngi arène nationale yéen a ngi ci arène bi waaw mën naa ñëw ma jël bi ndeysaan tuus na ba pare moo Dia la ñuy woo léegi moo war a tuus ndeysaan cey national nekk tey di dimanche 11 juillet PABC Events Prince Sissoko moo fi woote tey lamb ju neex waaye combat bi may seen kooku rakku fëgale la Daouda Sandis bu Lansar Daouda Sandis daw na sa ngongu ci géeg wi ñu ngi sotti muy daw di wër rek ndaysaan Daouda Sandis ba ñoom ñaar de Daouda Sandis ak ka mu war a bëreel moog loo sot xool nga xëccoo ba foofa da koo bëgg a wër mu ne du ma ko wër du ma wër loolu indi coow li foofu Daouda daa yor xaw bëgg koo wër loo ne ko doo wër yàgg-yàgg di ñëw ci géew bi bëre de cey làmb cey bii jàll na demal ma ca Modou Dia demal ma ca Modou Dia demal ma ci tuus mi hélas voilà Modou Dia tuus ngongu sotte comme soow ànd ak caatu ngewel ngin bu yoof Malick Niang ñoo ñu tey